su la neexee nan ko bindee mu ne wéy wa lépp de wéy wa su la neexee nga dara la def aw wéy loolu loolu moom la ñu wax moom la ñu wax moom la ñu taw am fa law raayta musa bi baadama rahalu rasayta li min azabi yawma baynihim soo gisoon li ma jot te gannaaw bañ laxasee kon da nga may yërëm ndég mbugal mi may jànkuwanteel ca mm. kera bañ faccee ñoom mm. fa law raayta musaabi baadama rahalu mm. rasayta li min adabi yawma baynihim yi xam muy mimi ya su la neexoo nga ne fa law raayta musaabi rasayta li min adabi kon mu baax di kon muy wéy kon muy wéy di loolu la ñuy am ñu naan tasriya loolu lay jàngale waaye da koo teg ci yoonu ndax Abu Zayd moo kalaame doom ji ne dafa sàcc wéyam mm. lam wax ne moom la wéy mm. ak lam wax ne moom la doom ja def mm. te nga gisee tabian bi muy wane ba nga xam ne xaadi jot na leen nattu ci xalbatul ijaza ba jot leen jox alal da leen saxal yu rëy ndegete moom kilifa guy nax la gannaaw gi mu mujj di wax nañ ko sàng sutura yàlla bu jëmee kaw daal dëgg dëgg ak kilifa daal def nañ ko yenn yi gënul dëgg dëgg <laughs> haka nettali na alxaaris xaaris ibnu hammam xaal hmm. mu ne naba becci ngaloon na biye ci man hmm. malakul watani min dëkk hmm. fii sarxi zaman ci njël beneen ndaw jamono bi may doo ndaw dafa am jamono dafa am temps boo xam ne tànnu ma woon toog sama dëkk li xat bin ngir mbambare muy mbir mu diis xusiya moom ragaleef na ko waxaw bin ak ngir ragal xasiya goog dikk na mm-hmm. ndeg mbir moo xam ne hóolu hëddi naa ko mm-hmm. su ma jogu sàkkkaay mm-hmm. taxoon mën a tuma toog faaraf tuma tuur kasal karaa kasab gëmmintu wa nasaf tuma yëkkati rikaaba suraa gawari rañaan ma xam ne gannaaw jog jot na ku yabu jog xam guddi rek ma takk samay bagaas dal di rañaan wajubtu ma dagg fii sayri ci sama dox wooran ay ñëgës ñëgës yoo xam ne lam tu dem misaar noyalut leen alxuta ay jeego wala tada tegindekuul ilayha jëm ci ñoom alxata tibri su ma bi jaar naa ci ci yu ñëgës yoo xam ne kenn mosu caa jaar ay xàll yoo xam ne yu nit mën la yoo xam ne tipp ripp sax lu muy xam-xam jaww ji mm. yaakaar naa bu ci jaaroon dana gërëm mm-hmm. wajubtu dagg naa fi sëri ci sama dox bi mm-hmm. wooraan ay ñëgës ñëgës mm-hmm. mooy barab yu naqadee dox yoo xam ne lam tu dem misaa noyelut leen alxutaa ay jeego dul ay yoon yoo xam ne nit ñi dañ cee jaar ba mokk wala sa dëkk gindeekuwul ilayha jëm ci ñëgës ñëgës yooyu alxataa tipp ripp xataa waratu ba ma dikkal ximal xilaafati baxdaat mm-hmm. nii laa ko defee rek mm-hmm. ba ak mm-hmm. wal xarama tey hurum al asima badaa ji min al maxaafati ci ragal baxdaat bi nga xam ne tey xaramun asim la soo ko duggee mucc tey mooy capitalu l'islam ah dëkk bu xam ne bu siiwee la jàkkaam ya ak al Abbasi moo ko tabaxoon loolu moo tax ñu ne Madinatul fa sarawtu ma wuññi hmm. ijaasa rawxen yëg yëg tiib hmm. wasti saaraw ak yëgam hmm. ba ma àggee Baxdaad ak ni Baxdaad demee ragal ga ma doon ragal ca may toll ci digg àll ba yëpp jeex ma am xel mu dal wa tasarbaltu ma mbubboo libaasal am ni ko dayal hóolu wa ak lambayam wa xasartu ma tëj hammi sama hitte ala lazzatin ci bànneex ajtaniha boobu danaa ko kotti wa mulhatin ak wax ju xoromu ajtaliha joj danaa ko feeñal su ko defee hitte yëpp nag mooy bànneex rek waaw naa dëkk bi neex na ah yor naa dara ah may daf yi bànneex rek da ci barabi xumbute yi ah te de ci noot yi daal Euh, de solo comme ni ma neexee rek mm. ak itam di lekkee comme ni ma neexee rek mm. di dem foo xam ne bakkane na rek mm. wa qasartu ma tëj hammi sama yitte ala lazzatin ci bànneex ajtaniha boobu danaa ko kotti yu xam ne bakkane na wa mulhatin ak wax ju xoromu ajtaliha ju danaa ko feeñal wala yenn jataay adab yi may ci dem fa barastu ma génn yow man bis ilal harimi jëm ci harim bi mooy xëttu buur bi mm-hmm. benn bis ma ne damay génn mm-hmm. ma jaar ci fi nga xam mooy xarim bi mm-hmm. li aruda ngir naa tàggat tër fii sama mool boo maa ngi amee fas bu ndaw bu xam ne aajoon na tàggat dama koy war dox ak moom ci dëkk bi woo ji la ak ma wëndee tar fii sama gis fii turqi yi ci mbeddi xarim bi ak yooni xarim bi ak itam dox pour visiter dëkk bi rek def yëf yi permanence rek fay saa ci métteel hmm. fursaanu na am ay gawar hmm. mutataalun ñu doy toflantoo hmm. wala fay saa ci métteel fursaanun ay gawar mutataalun way toflantoo lañ foofu ma gis ñu war ay fas ñu takkoo takku ñu ngi toflantoo di dem wari jaalun ak ay gaay mun saaluna ñu doy toflantoo xam ñuy dox ak tànk itam di dem wasayxun ak ak góor tawilu lisaan gudaaji gudd ci làmmiñ ma gis kenn góor goo xam ne moom de ku mën a wax la mu ngi wax rek nag xasiru tay la saan kuraay ji gàtt ci kaala hmm. mu ngi am yére bu xam ne beti kaala la hmm. te def nay jot xat hmm. la ba ba poñe na fatan gune jadi da sabab kuraay ji xeetu ci ndaw xalaxal jilbaab kuraay ji ràpp ci kodday yére góor gi daal mu ngi soow na baax benn kaala bu gàtt la dafa poñe nag benn xale bu xam ne ndaw la xale bi nag yére yu ràpp la sol waaye yére yi lu muy ràpp ràpp góor gaa ngi téye ci tala te mooy ban téye way daa ci mbetteel saalun ay gawar mu ta saaluna way toblaantoo lañ wari jaalun ay gaay mun saaluna way yooru lañ wa ak góor tawilu lisaan gudaa ji gudd ci làmmeñ xasiru tay saan gudaa ji ci kaala xat la baba poñe patan gune jadi da sabab gudaa ji heese ci ndaw xala xal jilbaab gudaa ji rapp ci muuraay farakattu maggaaw fii isri nazarati ca gannaaw wéy seetaan ya ma topp ci ñiy seetaani an nazara mooy mbooloo mu dajee de seetaan dara dégg nga loolu loolu lay firi ci waxi arab waaye jamono bii nag ñu ngi koo jëfandoo ci lii li nag jumtukaay bi ngay seetee kooku tattawurun luxa wii la rek mu ngi mel ni sayyaara dañ ko daan jëfandikoo ci jamaa musafira waaye tey nag ñu ngi koy jëfandiku ala alatin turkabu safari ci mm. itam noonu la rek dégg mm. hatta waa fay naa ba dikkal mm. baabal imaarati buntab imaara ba mooy fi amir bi dëkkee dama leen topp ñu dem fi amir bi dëkkee wunaaka te nekk foofale sahibul maonati borom ndimbal li mu tarabbi mu tarabbi an daa ji fereng layu fii yi ci darajaam bi mooy lalu sarwisam bi wa mu rabbi an te daa ji tiitlee bi yi ci melokaanam bañ demee ba ci buntu imaara bi fa fekk amir bi mu ngi toog ci lalam imaara bi xamee melokaan bi nga xam ne melokaanu wegu la lool wunaaka nekk na foofale saahibul maonati borom ndimbal li mm-hmm. te mooy buur bi ki bi buur bi teg mm-hmm. mu tarabbi an mu daa ji fereng layu fii dafsi yi ci darajaam mm-hmm. mooy mu ngi doxal service am ba mu rabbi an te daa ji tiitlee bisam ti yi ci meloom fa qaala dal di wax lahu asheikh ba mu ko defee kalaame ante la góor gi mooy wax de ne ahasa yal na teral allahu yàlla alwaaliya waali ji wa jaala te mu def kaaba woo darajaam alhaali bu daa ji kowe ndax it nag kilifa la fokk si ci yar ak teggin la ñuy ànd ak moom loolu moo tax bu la fi soxla indee loo xam droit wax ko da nu déggoo yar ak teggin loolu moo tax mu dalee ci tagg yal na yàlla dëgëral la yal na kowe inni man kafaltu yar naa haadal xulaama gile gune fëtti man bi muy ku ñu feral mm-hmm. kere dee ba mu gimmee ba weer mm-hmm. bu ne mm-hmm. kere ba mu gimmee ba yeween kere lañ ma ko jox wara bay too yar naa ko man mu jirim xamul bay man rek la am ko de ko yar su ma lam aaluwoo topp ma ko temps man ci xamal ba jot a dara dugal ci dara ma li ëpp ma dugal ko ca te yoonu xam-xam mm-hmm. taxawu ko mm-hmm. ca ba mu am ba mu am ca ca mm-hmm. ah, kii de ba mu gimmee lañ ma ko jox amul bàyyi ba mu jot a dugal ci dara ma seet lépp njëriñ te mooy yoonu xam-xam ma dugal ko ca da ko ca taxawu ba mu am ca manoore fala ma mahara ba mu ñëwee ba mu demee ba am ca manoore wa bahara xam ne àgg ci foo xam ne daanaka xel xawu koo mën a melal mm-hmm. jarada bocci na sayfal odwaani jaasi noono mm-hmm. wasaara te mu bocci ko mm-hmm. dafa ñàkk lu ma def takk mu wujji foog ne daal su ma ne waaw mu ne déere rek su ma saalee mu fay rek jër ak nooneel bu kenn xamul doxale ko sama diggante ak moom te moom lu mu doon ko tax doon wala ma xalu jortuuma ko woon yalta wi muy ñëgës xale yee ci man waye taxiwu te muy dëggal xar kanam ngir ñàkk kersa xëy na yar tawi waxtu wa mande mi nii ci man wayal taxiwu te mu naan ci sama gëlëm ral man dama yaakaaroon ne su ma ko xamalee ci suma xam-xam ba mu nite dafay jàpp ne man mi ku ko jëriñ lu gën ci njëriñ yi laa mu ma comme ni nit di tëxee ku ko ëppal njëriñ waaye defu ko ak ak ñëgës daal la wan ak ak dëgër bopp hmm. ak ak ñàkk kersa hmm. mel ni maalim nu awsin ca jarba tamba hmm. mu ne uallimuhu rimayata kulla hiinin dama koy jàngal fett waxtu wu nekk na mën rëbb am lu muy dunde falamma sadda saidu ramani loxom dëgër mu jamma uallimuhu rimayata kulla hiinin falamma sadda saidu ramani kama allamtuhu nazmal xawaabi ma ne ko xamal noote ay wëy mu mën a wëy xasma falamma qaala xaafiyatan hajaani daanaka loola ma dal ci moom wa allimhu rimayata kulla hiinin falamma sadda saa'iduhu ramaani kama allamtuhu nazmal xawaabi falamma qaala xaafiyatan hajaani daanaka noonu la doxalee ak man daal dëgg-dëgg. gis nga bu baax a baax. jarada bojjina boccina sayfanoon waali jaasi noono wasaara te mu bocci ko wala nga xalu jortuuma ko an yal sawi muy ñegas muy muy takkulo ale ci man waya taqiyo te muy waw xarkanam ngir ñàkk kersa muy muy ma jaay dëgër bopp xëy na yar sawi waxtu ba mande mi ni ci man waya taqiyo te mu naan ci suma gële mi rabbi fa qaala dal de wax lëwoo ñaal góor gi alfata gune gi góor gi nag bi mu waxee xaadi jili hmm. gune gi le ko hmm. xalaa ma ci lan hmm. xasarta nga fakkatal min nii ci man ha yow ana loo fakk ci man loo ci man xataa tal sura ba ngay tasaare xaatal ise gile toroxaale xan nii jëlee ci man ma ana lu ma def ba gëne ma ci melokaan wu ñaaw bi nga dama jéem nit ñi mm-hmm. dama andi fii ni yéen mm-hmm. dama askaneen loo bon lii mm-hmm. mënu ma def fa wallahi giñ naa ci yàlla maa satartu tudduma wajha bi maa satartu nëbbuma wajha birrika xar kanamu sa njekk de man nëbbuma kenn yaa ma taxaw su may waxtaanee ku may jëriñ ku may jëriñ yow lay dalee de wala hataktu xosiwuma hmm. hijaaba sirrika hmm. kiidaaya sa suutura hmm. xelaatuma benn yoonin nag bu weer sa sekkare mukk wala saqaftu xosiwuma xasa amrika xeetu sa ndigal xamul lenn loo may def loo te du ko def wala alxaytu sànniwuma tilawata sugri sugrika jàngat sa sant te bu may waxee jëm ci yow waxi hormal waxi sant Mm. waaye mooy nag lii sama wàll te mooy nangu lu ne mm. mu man mm. kon lu waral lii wax dëgg yaay lu ne waaye mooy nag lii sama wàll te mooy nangu lu ne maa kon lu waral lii loolu gune gi wax fa qaala daal di wax alfata gune gi ne ko ala ma ci lan asarta nga fakkatal nga yëg mil nii ci man xata tan sura ba nga tasaare xaadal xisye gile toroxaane an nii jëlee ci man an nii man yow ana loo gis ci man loo xam ne jubut ba nga dem a jib mbooloo mi dama yéebaanee nii ci melokaan yu ñaaw yii dafa wallaahi giñ naa ci yàlla te may la giñal ci yàlla ne maa satatu nëbbu ma de wajha birrika xarkana musa njëkk man li nga ma defal nangu naa ne yaa ma ko defal de gis nga ku baax a baax wala hataktu xottiwuma mm. hijaaba sitrika mm. kidaaya sa sutura mm. te itam lépp lu lay sàggi du ko def de wala saqaftu xottiwuma mooy xaruma asa amrika yatu sa ndigal mooy sa ndigal du ma ko def wala alxaytu sànniwuma tilawata sukrika jàngal sa sant waxee loo mooy sant la kooku du ko def ndax man li ma xam rek mooy lu baax daal lu baax rek lañ ko war a mm-hmm. li ma rek mm-hmm. mooy la waa ji wax isa afadaka mm-hmm. insanun bi faidatin min al ulumi fa lazim abada wa qul fulanun jazahu llahu salihatan abadaniha wa alqil wal hasada man loolu laa gëm loolu moo tax yaay lépp mais nangu naa ne yaay lépp lu waral lii xanaa lëgóor ngay tontuwaat ah? beneen yoon <laughs> gi mu ne gën a góor gi man de xamul lu ma def ba nga dem a man de gërëm laal nangu li nga def ci man ak da ko waxtaanee ku ma xam de loolu la xam ci man waaye xam nga koo wutul jàmm moom wutul jàmm rek fa xaala dal di wax la woo ñaal gune gi asayxu góor gi góor gi na ko waye la ko xoonaa saal kande boobu ni yow waay wa ayu ray wa ana ban sikk hmm. afda moo gën a doon toroxaande hmm. min ray bi kay ci sa sikk hmm. waa nay bu ndax am na ayib afas bu gën a ñaaw min ay bi kay ci sa ayib ku la fekk ngay jéem a sa ngay jéem a seetal sa bopp yow xanaa tilim bi moo gën a moo gën a kajam ci mm-hmm. ku la fekk ngay jéem a seetal sa bopp xanaa mm-hmm. yaa gën a tax mm-hmm. ana ban sikk afsa moo gën a nekk toroxaande min rey bi kay sa sikk si waa hay bu ndax am na ayib afas bu gën ñaaw min ay bi kay ci sa ayib waxati dangay te te yaa ngee woote sihri sama fasaha sama njeebeer wasal xaq sa woo nga de ko yëgal ci sa yow sama may gi mm-hmm. man mii sa sëriñ mm-hmm. moom nga mbubboo mm-hmm. da ko doxee ne yaa ko moom waqati daay te woote nga sihri sama njeber mooy sama fasaa wasalaat sa nga sax koo ci sa bopp wantaat sa askanoo nga sihri sama wëy wasalaat sa nga sàcc ko ma wëy nga ñàkk lay def sàcc ko naan sa wëy wasiraaku sihri te sàcc wëy inda suara yi bu wéykat yi kana sàcc wéy nim disee ci wéykat yi afdan moo gën a ñaaw min sariqatil bayda ci sàcc xaalis eh. wa safraay ak wurus eh. te nit ñi dañoo fonk seeni xelaat eh. sàcc seeni wéy sàcc seen alal la gënal moo leen gën a sàcc sàcc xaalis leen gënal sàcc wurus leen gënal wa xayratuhum seen ak piir ñoom suara yi ala banaatil afkaar ci doomi jigéeni ka xayrati mu ngi mel ne seen ak fiir al banaati ci doomi jigéeni al afkaar yi ñu rey xëy niñ fiiree ci seen doomi bopp yi jur noonu lañ fiiree ci li seen xelaat génne fa qaala dal di wax alwaali waali ji dal li seexi ñaal góor gi ne ko waxal ndax yi saraxa ba mu sàccee salaxa dafa def salxu salxu mooy danga jël moosi xaaxam nit rek te bàyyil ko fa maanaam ya waaye tartibul alfaati nag ci moom nga ko royee ni ki tey abu tayyibil mutanabi wax na ne laa bi xawmi saruftu bal sarufoo bi hmm. laa bi qawmi saruftu bal sarufoo bi hmm. wa bi nafsi faxastu laa bi judoodi hmm. xam nga noonu la waxee su ko defee Hariri wax ci maqaamaat ne fa bi fadlin tafaqtu laa bi fudoodi wa bi qawlin tafaqtu laa bi xuyoodi ku ne xam ne moo de xaabi ci la ko waaye nag jëlul dara na ci maanaam amul benn soxla loolu mooy sabab ndax noonu la defoon de bëri na lool am masaxa wala dafa def masku masku mooy da ngaa jël xalaatu jàmbur waaye nekkul ne da ngaa jël baatam ya waaye xalaat bi moom ci moom nga dëgg génne xeetu sa cin la ahda zamaanu saxaahu fa aada samaana saxa uhu hmm. fa saxa bihi hmm. inna samaana bi mislihi hmm. la baxiilu tabam la wàll jamono jamono door koy nag ko nangul génni mais jamono da ko neyoon a génni inna samaana bi mislihi la baxiilu seen bu baax a baax inna déet hayhaata laa yaati bi mislihi zamanu du indi kemam inna bi mislihi la baxiir inna samana bi mislihi la baxiir kale ne aada samana saxaa uhu fa wala qad yakunu fii zamanu baxiila tabam la wàll jamono jamono door koy nangoo indi mais da koo nangoo da koo neyoon a wala qad yakunu bihi zamanu baxila hmm. mutanabbi moo ko wax hmm. waaye ci abu tamam la dëgg inna zamana bi mislihi la baxilu hmm. ànd fikra bi la jël rek waaye dund nag daf ko dimbandikoo nag ci tartibul alpha loolu mooy mas am na saxa wala dafa def nafsu mooy dangaa fekk ku wéy rek nga fàttu yaa wéy jël bari ak maanaam yëpp mooy intihaal boobu moom kenn du ko taggee nen na parce que sàcc la loolu moom sàcc rek moo koy def buy sal ko leneen nag jëluñ ko mën a taggee buy mas ko leneen nag jëluñ ko mën a taggee waaye nas ko moom mm. mm. sàcc rek la su ko defee sàcc fiir la sàcc kese mm. la fa qaala góor gi ne ko walla di giñ naa ci góor bi nga xam ne jaala dem ak si arab way diwaanal arab yi muy diwaanu arab yi wa tarjumaan al adabi tey lappatoo adab maa hmm. haddasa sosu sawa siwaam batara hmm. lu may dafa dagg sam la sar yi mbooloom ay eh, baatam hmm. waaxaara te mu lokki xalaa sulu say sar yi ci ñaari sulu si géddam moom daal li mu wéy moom la dagg rek wàcci moom la am lu mu dagg dara la def mu méngoo wéy bu ne na ba dindi ca sulus rek dem na ci satru bu njëkk bind di ci sulut dem na ci bu ñaar bind ci sulut sulut ji dal de wax la woo ñaar góor gi mm-hmm. gi ne waali ji ne ko mm-hmm. am si sa dal ab yaataka say way birum matiha mboole seen mm-hmm. li yetta na leer maa li nga xam ixtaasoo la xanaa ko moom góor gi min jumla te ay ci mboolem way mu ne ko ah dafa yoo xam ne pour kilifa dugg ci laa dafa war a mm-hmm. li nga wax leer a dul waaye dama bëgg nañ nga wéy sa ma dégg faanka la góor gi daal di sadd mm-hmm. ne yaa xaatiba dunya daniyata innaha taraku rada wa qararatul akadari mm-hmm. daarul mata ma atakat fi yawmiha abkar xadan boodan laha min daari yaa xaatiba dunya ay yow mii labat haddina addaniyata haddina madaaji suube mm. innaha naka haddina mm. saraku rada mooy biitag halaku mm. wa qararatun akka daari te mooy naxuwaay saxuwaay nax nax yi yow mii labat haddina lu halak nit yomb na ja te daraam sellu neexam maasewul daarum kër la gu xam ne matama atakkat waxtu wu mu reeloohee fi yow mi ha ci tayam ab kat mu jooyloo xadan hëllëg bu ma dan wana suri la ñaan ko min darin fiita hëllëg koo xam ne bu la reeloo ye tey hëllëg dana la jooyloo way daa asal la bu keralee sahaabu ha niiram bu xiinee ba mu tiilit lam yantaqin du mande minu ci am sadan mas du tax mu tax ba mande am de li jaxam yi ngir sooyee gànnam mooy ndir ko ko soowu da taw alxarraari way way naxe yaa ko addina mm. loola mm. taxul mu jox la de lawarkat mm. la mu xiir ba mu tiim taxul mu taw de ndax bi jaam ne jaam muy niru fa sow da taw way daa dal la bu keralee saabu a niram lam yantaqi abdu mande minu ci moom sadan maro li jaam yi ngir cëwe ngaanam alxarraar lay naxe yaa ko xaratuha ay lokkim matal xadir du ñu jeex xanu yi mooy songee ni defu ko sonnale ñu bëri wa asiruha ku ñu jàppam layu sada defu ko jotee bi jëlayil axtaari ci way màggi daraja yi wala way màggi mbambare yi te dem ku mu xas ba jekku jaamam rek ngay def kam musdahan bëri na ku ñu xoyoo falee mooy ku ñu bégalee bi xolooriha ci naxaat ak àddina xataa badaa ba mu feeñ mutamaridan daa ji fetërlu mutajawisal miqdaari daa ji jéggi lee koo xam ne dem na ba foog ne dara tëhatu ko ndax àddina ko nag xalabat jàllar bi ne moom adduniya la ko ñaal ko zahral mi jënni gannaaw ak pakk mooy gannaaw ak défense dimanche ba mu foogoon ne moo koy xaar dimanche ba laa dina wëlbati mm. ba xol faa ngay ci biir jam mm. ko mm. la mu foogoon ne mooy man-man loolu laa dina nangu daane waaw la xatte mu tàbbal fii ci moom al mu daa faata jàll bi na dimanche ba xal faa nga jam ko wana kat mu tëb moom àddina li ak si saari ngir fayu dara mel ni daa waaye lépp lu mu jay woon rek dana ko sonal farban na nga ñoŋeel bi omri sa dund bi mm. ay yem ba mu rombat mu dayaat de lu ñu sànq fi haa ci mu sudan ci neen mm. min xayri ma tibarin ci mm. sa dund bi bul ko bàyyi mu kasaara préparé woo ci yéen ëllëg waqata na nga dagg xalaay xa hubbiha hubbiha haji waay soppa haddina wati labiha soppa haddina yi wara soppa haddina yi waral jëmmal ko moom kenn hmm. yëpp daggaleen soo ko defee talxa danga dajee alhuda njub hmm. wa rafaat al asrari ak nëppulu biir hmm. war xubte na ngay fuuglu isa ma salamat bu jugóoyee moom haddina min kay dehaa ci pexeem na ngay fuuglu xar balin daa xareef noon yi wa tawassubal xaddaari ak tëbëg xotakoon su niroo ne juboo na ak yow it hmm. xamal ne juboo ak jàmbukat la de hmm. àddina bu niroo ne wan na la loo neex ak yow it hmm. ne koo sérieux hadi la de waalam xamal ne bi an na xutoo baa naka mbambare àddina taf jaa danañu bette walaw taala donte yàgg na almada lef mi booba nag donte doo àddina sural aqdar la ñaanam dogal yi te itam lum niru niru ne rek xel dal na bette mooy biram hmm. baax na ko wala summa qaala lahul waadi hmm. watu jàngoon nañ xasida bi ba mu xàgg léegi góor gi jàng na xasida wax ne nii la demee hmm. su fa di wax lahu ñaal abu zayd lahu ñaal góor gi alwaali waali ji nag waaw summa topp maasa ana nan sanaa la defal kii léegi yow lii mooy sa xasida ki wax ne moo daaj ci sa way nu mu ci def fa qaala mu ne ko aqdama jublu na li lumihi ngir bonam fil jasari ci fay ala abiyaati ci samay way asudasiyatil ajisa yey ko ci juróom benn ci jusu fa asaba mu asab min ha ñoom jus ay ñaari jusu wa naqasa mu wàññi min awsaanihaa ci seeni nattu was nay ni ñaari nattu hmm. hatta saara ba mu di arrusku musiba fiha ci samay way hmm. rus ay ne de ñaari musiba hmm. mu ne ko man sama way wi way boo ci dem juróom-benni jusu la ndax kaamil la juróom-benni mutafaa'ilun la darbu bi mooy moo nekk maqaton wala natto faa'ilaatun te loo léegi satru bu njëkk bi ñetti mutafaayilun la mm. bu ñaareel bi di ñaari mutafaayilun ak benn faayilaatun mm. mooy ñetti juzu fii ñetti juzu fale mm. man samay wéy benn bu nekk juróom benn juzu la léegi ni ma ko wéyee dem wéy bu mu dagg ci ñaari juzu mu def ñeenti juzu mu ne moo ko wéy xam nga wax dëgg yàlla juróom benn kay boo ci dindee ñaar kooku dafay doy war ba satru bu nekk nga dindi sulu sax noonu la def way bu nekk ñaari musiba dama ci teg mm. parce que satru ba satru bu njëkk bi wàññi na ji mm. satru bu ñaareel mu wàññi ji felu ngu baax a fa saxta saala ba musiba fiyaa mm. ay na de ñaari musiba fa qaala waali ji dal di wax lahu ñaar abu zeydin waali ji wax abu zeydin ne waaw bayin biralal daal maa xasa li mu jàpp wa mi nay ak ci fan fala sala dagee léegi mbiru xatte moom duñ ko duggee ci tollaleeg na table yow mi dem ba kalaame da ngay wax lu leera leera leer su ko lu leer lii lañ ko xam lay xatte léegi daal sama wéyi juróom-benn jusu la woon mu dem ci wéy bu nekk dagg ca ñaari mu mel ni musiba wu ne ñaari musiba da kooku du doy léegi jàng nga sa wéy hmm. wan ma wéy wu nekk lam ca daj hmm. fa qaala mu ne ko hmm. arxen nii sàmmal ma sama kër sa dégg waax li te nga féexal daraaka sa xel li tafahumi ngir wut a dégg yaa nii ci man mu ne ko ne loolu nga bëgg yow ma ne dégg nga ma danaa ko wax ba nga dégg ko xataa tatabayyana ba nga mbirlu kayfa aflata naka la boccee nooneel alayhi ci man ba nga xam bi melokaanu loxoraan bi ma ñëwee wa taqdura te nga xam xabar tirami kem tooñaa ngeen ilayee jëm ci nga xam ni ma tooñee su ma sada topp mu sadd moom góor gi waa mbaasoo te ay nokkatam te tasaadu ñu ngi yëkkateeku góor gi commencé sadd wëy xam nga yaa xaatiba dunya daniyata innaha saraku rada wa qararatul akdari mm-hmm. muy raiya mm-hmm. yoon bii nag da ko mu def mm-hmm. daaliya waaw wenn wéy nga man koo jàngee ñaari jàngin muy ñaari façon yi wéy yu wuute moom la ñuy am ñu ne tasriyan moo ko njëkk a def gannaaw yi topp ndoor nañ ji waaye moom nag moo jiitu ak lu mu ne yaa xaatiba dunya dani mm-hmm. yeddi innaha saraku rada mm-hmm. léegi daaru yéla mm-hmm. xam nga jàngoon nañ ko daarul mata ma akat fi yawmiha akat rada boodan laha min daari bi lañ dindi wa ida adalla sahabuha lam yantaqi minhu sada xaaratuha ma tanqadi wa asiruha la yuftada xam nga bu nekk dañ caa wàññi rek ka mustaham bi xururiha hatta bada mutamarrida qalabat lahu zahral mijan ni wa awlaxat fihi lmuda farba bi umrika ay yamur ramudayaan biha suda waqata laiqa hubbiha wa tilabiha kalqalhuda warqub ida ma salamat min kaydiha harbal hayda waalam bi anna xutuubaha tarja walaw saalal muda xam nga ne benn bu nekk am na luñ ci daan teg mu ne ko xale bi lii la defar génne ko ci fi muy wëy tuddoo faltafata dal di geesu alwaali ilal xulaam ji geesu gune gi wa qaala mu ne ko tabban xalaku laka ñaan na mu ne ko yow ku gore hadina mm. yow ku bon la mm. min xirrijin ci xirrij mm. maariqin ku daa di génn mooy kuñ yar ci dara ba yow dañ la jàngal ba nangul la xam-xam nga ne ñàkkee ngor ko jàng kala jàng dafarte xormam lii daa gis wa tilmidin akab taalibe saariqin bu daa ji nga def taalibe boo xam ne da nga waroon de yaatal sa waxi sëriñ da nangu noo jëriñoo ci moom nga de jël waxam de ko tuddoo da tàgg xelaatam lu lajib loolu du gore ida afadaka insanun bi faidatin min al ulumi falazim sukrahu abada nit bu la jëriñee xam-xam da di wax waxi sant war di wax waxi hormal ci sa diggante إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلا تنسكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألغي الكبر والحسد te nangoo nanga nangoo wane ne ci moom nga ko jëlee waaw waqul fulaanum jazaahu llahu saalihatan afadaniha wa alxil kibra wal hasada ah waa lii ñu wax xale bi noonu yow déggoo li ko ko wax hmm. déggoo li ko ko wax fa qaala di wax alfata gune gi hmm. gune gi nee ko hmm. li may njëkk a def rek may waat ngir la mu xam ne yaakaar naa su ma waatul daal daanaka lu may fetal amul baritu yal naa dëñ minal xam-xam wa banihi ak i doomam wala yëkkute yal na yéeg bi a ci ñi nga xam ne yu naa wii danañu noonu adak in kaana bu wayu xawidu te ñi daaneel ma ba nii ay tabaxam in kaana bu nekk ay ay wéyam namat di ilaa ilmi jëm ci sama xam xamlaan alaftu njëkk may taani xam ni li ma lay waatal mooy wéy mu wan la maa ko taani waaye ba ma koy taani boobu yëgaguma ne moom na wéyam nii la demee mm. su ko demee wut daal yàlla bu ma xamante ni cër ci liggéeyam xam mm. dama lay waatal mm. loolu la wax wa innama tafaqa dëppoo na tawarudul xawaatiri rotlante ay xalaat li xam moo di ne man moom laa xam ñoo bokk gëm-gëm suñu xalaat dajee na ci lenn loolu képp la waaye du yëg man moom laa xam xëy na ñoo bokk gëm-gëm suñu xalaat dajee na ci leneen ci lenn loolu rek la waaye duut man waxam lay jël wa innama tafaqa dëppoo na tawaarudul xawaatiri rotlante xalaat kama yaqawa ni ngi dalee alxafiru we alxafiri ci we léegi yoon man nga ci jaar sa tànk tegee ci tànk kulis de koona jaar te fekk dajja rekk la waaye jubluwoo sax teg ko ca tànkam li la gone gi wax qaala na fa ka annal waaliya daanaka waali ji nag jawasa dëgganal dëggal daganal na mu sirqa saam yi dëggul njortu gone mu mel ni waali ji nag li xale bi wax pour moom am na maana yenu na maana nit na ko nangu fa nadima mu réccu xaala baadirati samnihi ba mu ŋàññam bala mu ko doon wax tabban laka min tilmisin min xirijin maariqin hmm. wa tilmisin saariqin hmm. na ne ko ah, man de su ma yëgoon du ma gaaw a waxee noonu hmm. te loolu waaw Musa Musa yufakkiru de xelaat fii maa ci loo xam ne yakshifu dana mu ñil la wa ñaal ko anil haqaa'iq ci wala yu may yus dana jàqee bii jam ak bàyyi xaaji koy mel may xaaji dox mm-hmm. mu commencé de xelaat daal nan lay def mm-hmm. ba xam daal ñaar ñi seen kalameante bi kan ma ñu wax dëgg mm-hmm. ndax xale bi sàcc xelaat yu dajee la wala góor gi wax dëgg xale bee sàcc xelaat na xelaat wala mu yara gisul daal illaa axdahu ma dara jàppee leen mm-hmm. bil munadalati ci fettante mm-hmm. wala sahuma ak lënkale leen mm-hmm. fi qaranin musaajalati ci sugu dafiyante qaran mooy banque boobu ñuy boole ñaari nag mooy suddena musaajala mooy jongante xaadi jinaa bi mu seetee seet daal li mu gis mooy taxawal ñoom ñaar ñi jongante ba xam rek daal fa mu ne leen in a fa mu wax lahuma ñaar leen ñoom ñaar ne leen in aradtuma bu ngeen namee ibtidaahal xaatili gàccehu aji yokkal wa ibtidaa xaqi ak leer ak dëgg minal baatili ci neen fa tarasala na ngeen dawlante lu ci tegu fi nab mi ci wéy wa te ngeen gaarlante wata jawala te ngeen bokk wëndeelu fii halbatil ijaasa ti ci lefam lijaasa mm-hmm. al ijaasa mooy ñaari saayir ñooy dajee mm-hmm. bu kii waxee woy kii wax wa ca war a topp mm-hmm. comme diggante umru ul qays ak ubaydul abras ak bu kii indee satru kii indi war a xàggali comme diggante umru ul qays ak xaaris loolu mooy ijaasa selon loolu mooy ijaasa dégg nga wata jaara yaa te ngeen dawlante li yahlika ngir na halako man halaka kuy halako am bayinatin ci layu leer nañu wa yaxya ak dund man xayya kuy dund am bayinatin ci layu leer nañu jàng loolu pour ki faree dëgg gi dëggam la ki faree tafale yi tafaleem leer léegi daal su ngeen manee daal ngeen jongante ba xam na ko diw neen daal ngeen ñu wax ñoom ñaar bilisaanin ci làmmiñ waahidin wade wenn ba mu ñoom ñaar wa jawaabin ak tontu mutawaaridin du laajuro ñoom ñaar ñoo tontondoo seen xel moo ci dajee ñu ne ko xarradina bi sabrik wa murna bi amrik xarra dinaa gërëm nañ bi samrika ci sa natt fa mur naa digal ñu bi amrika sa digal ba mu waxee daal ñoom ñoo tontu mu lu xam ne seen xel yi ci daje na ko li nga xelaat ne ànd nañ ci seetal loo tànn fa mu ne leen inni man mu wóola woon ku ñu sopp loola min arwaayil balaaxati ci be ci xeeti balaaxa yi bi taj nii si ci jinaar mu ne leen man nag jinaas lu ma neex la mustahsanatul badi'a ye bari na waaye moom neex na ma mooy ay baat yu dajee ci jumla ni doon nuñ leen a jàngee te bokkuñ maana ni ngi ilahuna suñ borom ak ilahuna ba fii qultu lahu ilahuna sayarana ilahuna seetloo ko baax a baax waaw qultu lahu ilahuna sayarana ilahuna façon wax yooyu mooy mooy jinaas wa araabu danaa ji sëñ niis ka raisi mu mel ni njiit laa ñaa anoo balaa mm-hmm. moom daal ji ma ji gën a neex daal mm-hmm. ci la bokk mm-hmm. famsi ma na ngeen wéy alaana léegi hasarata abiyatin fukki wéy yoo xam ne tulhi maani ha da ngeen ko rabbee bi wasihi ci njamam wa turasi aani ha te ngeen ko dronkaale mooy taarale bi alihi ci takkaaya dama bëgg yéen ñaar ngeen indil ma fukki wéy yoo xam ne day am jinaar kenn ku nekk mm-hmm. juróomi way la may andil mm-hmm. wadaminaaha te ngeen làmbal bukki way yooyu mm-hmm. saraha lii leeral suma mbir maa il fin handa xarit lii ñaal ma ba dee sifati kudaaji héeme ci melo almasafati kudaaji xonq ci biir tuñ bu ko bukki way yooyu li ngeen ciy dama benn xarit boo xam ne bu taaro taaro la melokaanu bu héeme la biir tuñam dafa xonk dégg nga malihi tasanni ku daa ji xoromu ci wëññeeku mu doon ko xam ne bu la joxee gannaaw wala mu jox la njëg ku rafet la kasiri tiihi ku daa ji ci rëylu wata jën ak jeng wala ak tooy nekk ku yëg boppam itam ku bëri manoore moxran kari ku ñu xiir bi tanasinaadi ci fàtte fàttelu kóolëre wa itaalati saddi ak yàggal du moyu mm-hmm. nekk koo xam ne ku gëm wuruj la mm-hmm. ku gëm soxatee nit ku ko sopp la mm-hmm. ci di ko jox gannaaw wa ixlaasil waadi ak wuutee da te itam bu la waxee mën naa génn ci wax waa ana te man kalaam di maa ngi mel ni jaam la wa ñaal ko te man nag comme jaamam la eh, ak melokaanam yi lu muy doy dara dama bëgg ngeen indil ma bukki way yoo xam ne day am jinaas te ci anam bii ngeen cee waxee fa barasa dal di génn asayxu góor gi mm-hmm. mu jël yan daa jiitu mm-hmm. góor gi moo génn de moo njëkk a génn mm-hmm. watalaahu topp ko alfata gune gi musalliyan daa di ñaareel gune moo ko topp ñaareel ko al mujalli mooy fas wi jiitu ci kursi musalli bi saadi mooy ba day topp al musalli bi siini mooy bii ñetteel baax na waxil al ba ataani almujalli walmusalli wa baadahu almusalli wa taalin baadahu aatifun yasri wa murtaahuha summa alhadiyu muammalun wa jaala simrusu kaytu law yajri ba maagare dégg nga wa tajaara yaa ñu dawlante ñoom ñaar baytan way fa baytan topp way ala hada nataqi ci bile doflante ilaan këmu la ba mat nazmul abiyaati noo de way wasasaqa te mu daje ñoom ñaar ñi jongante bu góor gi dafay wëy gune gi daf wëy ba fukki wëy yi nga xanom la wali ji waxoon mat wëyee ñoom wëy yi nag mooy yi góor gi moo njëkk wax mu ne wa ahwa xawaariqi bi riqati saxrihi wa xaadarani ilfassuhaadi bi xabrihi wa ahwa bëri na aji xonq xawaa ku làq na mu riqi samam bi riqati saxrihi ci sew ak reefu waayam waxaadara nii te mu bàyyi il faut suwaade maraaji te koo foog bi xadrihi ci xootam gis nga ahwa ak hawa niñ dina sante ak riqi ak riqa niñ jam niñ dina sante ak xaadara ak xadru niñ ay baat la yoo askanantoo ci njàngin te bokkuñu ma gune gi daal de wax ne tasadda li xatli bi sududi wa innani la fi asrihi musaasa qalbi bi asrihi tasadda gaarlu na moom waaji li xadli ci rayma bi su doodi ci dëddu ni may joxe gannaaw rayma la bëgg wa inna nii man la fi asrihi maa ngi ci njafeela salaf ci buumu njaamam laa nekk musaasa waxtoom laa xee qalbi sama xol bi asrihi mboolem xol ba tasadda ak su xam nga askanantu ci jàngi na am na ji ak la fi asrihi ak asrihi jël nga jinaas bi góor gi dellu waxaat ne usaddiqu minhu zuura xawfa zbiraarihi waada stima haj hujri xasiyata hajrihi usaddiqu danaa ne dëggal minhu ci moom azuura neex xawfa zbiraarihi ngir ragal jéngam léeg fu ma wax lu du dëgg bañ mu mere me tax ma ne ko dëgg la waada gërëm istimaa hujri déglu wax ju jagat yi xasiyata ngir ragal tongu bañ mu maas ko dana tax muy wax lu jagu mm-hmm. ma di ko déglu mm-hmm. gis nga sóor ak iswira mm-hmm. xam nga dina sante am na ji ak hujur ak hajru xam nga dina sante am na ji gune gi wax ne wa taadibu taadiba minhu wa kullama ajadda ataabi jadda bi hubu birrihi wa taadibu danaa de neexlu sax day ataabiba mu gën dana maa def lu xam ne soxatee la ma def ko muy bànneex wa kullama ajadda bépp bu mu tasalee daal ataabi su ma mbugal jadda heese biyee ci man hubbu birri yi sopp jekkam bu dee wala nu may gën a soxatee rek noonu laa koy gën di bëgg de fonkee moom dégg nga xam nga ak tahdib ak tahdib dinaa sante am na ci ak a jadda ak jadda góor gi wax ne tanaa saati maami wa tanaa siimata matun wa ahbata qalbi wa waamigu sirri mm. yi tanaa saa si maami sama kóllëre dafay jéllale fi ma jaar ak moom démb watanaati tefat tefatelu kóolere matal matul ŋàññ la ku ne xam ne duur yëf yi bàyyi xel matal kóolere du yëf yi quoi waa fasa merloona alxafiisa mooy li si moom qalbi sama xol wa wate moom xaafisu sirri yi moo daa ji wattu mbootam si moom léegi ak bu ne muy wadal lu ma naqari te xam ne ci man loo xam ne bëgguma mu génn suba may mer te demaale mer ma rek laa ca man xam nga dañu am soxla lan sima mi ak madamma ak ahfada ak hafiz xam nga dina sante xam na ci su ko defee gune gi wax ne wa ajabu ma fihi tabahi bi bi bihi wa ukhbiruhu hana abuha bi kibrihi wa ah aji jàng way boobu wa ajabu ma gën jay hee muy li nga xam ne na ci gune gi nag asabahi mooy damaa bi bi ci xaaw yëg ma fii fii ci góor gi ci xarit bi bi ma ci ci xaawam xam nga jikkoom li ci gën a tumarange mooy ni mu yëgee boppam nag te foog ne loolu tiital la bu ubbiroo man dama koy màggal sax nag ana abuwa walis may tudd bi kibri yi ci réyam toog naan ko da ngaa goog da ngaa yëg sa bopp sax nag sala bu ñu àndee ma koy respecté day tax du ma ko wax ubbiroo kibru ak lu mel ni ajiba ak moj bu xeeti jinaas moo ci am baax na ko mottali téere lahu alladi taaba nasruhu wali minhu tayul widd tayul wuddi min baadi nasrihi ci diggante góor gi ak gune gi ba léegi góor gi moo wax ne lahoo ñaxal na ko min niye ci man almar wu tagg alladi tagg woo xam ne taaba neex tey na nasruhu xeñam guneex wali ñaxal na ma min wu ci moom nag tayul mm. widdi leen cofeel mais ban nasr yi ci gannaaw firim sala tagg yu neex laa koy tagg de mm. waaye xam naa su demee ba firee bu mag mm. mel ni yéen ci man almaru tagg mm. alladi tagg yoo xam ne taaba tey na nasruhu gasam mooy xelam gu neex mm-hmm. wali ñaan ne ma minu ci moom mm-hmm. lem cofeel min baadi nasr ci gannaaw firim dégg mm-hmm. ci nasr gune gi wax ne walaw kan walaw kaana adlan maa tajanna wa qad jana hmm. alayya wa gayri yejtani rasfa sahrihi walaw kaana bu nekkoon adla adlan de kumaandu hmm. konoon maa maa tajanna du jeex de hmm. wa qad jana te tooñ na alayya ci man wa gayri te kudul man yejtani mu ngi kotti rasfa sahrihi ñeeri reewu waayam gis nga tajan tajan naa mm-hmm. ak janaa mm-hmm. ak ejtani mm-hmm. ay baat la yoo askanantoo ci wàllu baat waaye bokkuñ ci wàllu maana jinaat walaw kaana bu nekkoon atlan ko kumandu konoon ma tajan naa du mu jeex nu duréy waqat janaa te tooñ na alayya ci man waxeeri te kudul man ejtani mu ngi kotti ab samar yi ñeeri roo reew waay góor gi waxaat ne walaw laa tasan nii sanaytu ayin nati waktidaaran ila man ajtani nuura badrihi walaw laa tasannihi bu du ni moo dëpp nit ñi su du ni moo dëpp léeg-léeg konoon sanay to ma na ti samay gopp bi ci jàkkalaate ji gaaw su ni moo dëpp léeg-léeg kon teg naa ko bu yàgg ila man jëm ci ki nga xam ne ajtani dana feeñal nuura badrihi leeru weeram ci nga bi daaran ak ak tasanni ak sanaytu ak ak gën a sante moo ci am gune gi ne wa inni ala tasrifi amri wa amrihi aral murra xulwan min qiyaadi li amrihi wa inni man ala tasrifi amri ànd ak soppat sa soppat sama mbir wa amrihi ak mbiram ara danaa gis al murra aji weex xulwan mu daa ji neex fin qiyaadi ci sama xamatu li amrihi ñaan ndigalam man suma wéy ci waaw ba neex la ko def amrihi amrihi ak murra ay eh, baat la yoo askanaan ko nii la fukki woo yi demee falamma an sadaha ba ñu saddalee waali ji ba ñu saddalee wéyi alwaaliya waali ji mutaraate lay ni mbir muñ di ñaari wéy toblantoo ba ñu wéyeelee waali ji wéyi toblantoo nii bu hiita galam loof na ko moom waali ji mm-hmm. li saka ihi maa ngi seen ñaari ñaw yi mm-hmm. al mutahaadi lay ni lu way hemoo mm-hmm. dafa yéemu daal ci ni ñawee te déglu wa mu wax ne leen mu ne leen maa ngi seede billahi ci yàlla ne innakuma yéen ñaar wala annakuma yéen ñaar farqada sama yéen ñaari biddi wi asamaa ni ñëw farqada ni ngeen wakkasan day ni yéen ngi mel ni ñaari doji béy fii mu ay ci ndab yéen daal yàlla leen tollale daal yàlla leen ngeen daal kenn mënu leen séparé daal wayit wa anna haadal hadasa ak naka gile gune wala wa inna haadal hadasa naka gile gune la yun bequ lamu libtida inna la yàlla allahumma taxtasu bi maamulatiha li yastabina fadluha ila xam nga fin de xatam comme aswabi boobu inna sawte hamsam nangu na fata nangu na kasra mm-hmm. waaye lan wu liptu dawu inna bil kasrati la yàlla wa inna hadal fata naga gile wa inna hadal hadasa mm-hmm. naga gile gu ne mm-hmm. la yunfiqu dana mu dundule min maa ci li nga xam ne ataahu jox na ko wàlla daal waya taani dana mu doy lool wuti ci koomam am man wari koo xam ne mu ne gune gi lépp lu la wax rek moo ko wéy mm-hmm. moo ko wéy mm-hmm. kii xam na loo dox diggante moom muy sàccal kenn mm-hmm. ba tuub na nga tuub na nga dellu gannaaw ayuha cheikhu yow góor gi min ittihaamihi ci tuumaalam yi ngay ràbb ci sa xel mi ne ndég ñaaw njortu nga di ko dëggal nga di ko dëggal doo ko àggee ba di ko indi file yooyu ngay génne ci sa xel mi wasut te nga dellu ilaa ikraamihi jëm ci saralam mm-hmm. nga ngëb ko comme koo xam ne yàlla warsagal na ko ku baax mm-hmm. fa qaala daal di wax aseexu góor gi ne mm-hmm. ay haata sori na am trois ans bu delluwaat ci moom miqati sama coogal kii yàlla jël naa ji moom ma ni ko xarit waat loolu du wax haata sori na entourage bu delluwaati ci moom. wëkkati sama cabar. aw temps la xaw wala deha bi fii ci am sëkkati sama ndëgër lay. léegi man maa ko wóolu woon. wóolu lu mu kii lu mu wóolu. waqat balaw tu te nattu naa. kufraana woo wéddim. li sa nee njëkk. parce que ak gore yaa di guma. laa dellu ci moom. wa mu nit na toog na ma. mbir mi ci moom. binoo xooxi ci mooy. ma xoox mooy xam lu nekk sa kër lu neexul sa kër ba nga ne jaar. binoo xooxi ci mooy assonia bu daa ci ñaaw kenn ni nga xamee ne noonu la ko lu ma neex xoola de mm-hmm. noonu noonu lay dawalee lu ma naqari noonu la koy dawalee mm-hmm. weesu naa mu ne na toog na ma mel ni que binoo bu daa ci ñaaw lii la gën a gaaw lii la góor gi wax mm-hmm. léegi xam na loo ku ko tàmbali ku ko daggul mu waxal xam na kàddu yoo xam ne bu jógee bu jógee boo daggul borom mën naa wax lu kenn mën la de waaw góor gi nag jomb foofu la jëm moo tara doo ko dogale alfata gone gi góor gi nag bi mu waxee lii gi dal ko dogale waqaala mu ne ko yaasa i yow mii inna la jaaja naka nuur su mun gàll yow daal loolu nga doo ko baax kenn mënul ci yow dara loolu gàll sikkara mu ne Adam Diop rahmatullahi alayhi mu ne daal nettali sëriñ boo xam ne dafa amoon taalibe bu ko nangu lool fonk ko lool nangu ko liggéeyal nangu ko jox nangu ko ne ba mu gërëm taalibe bi lool yàlla def taalibe bi feebar ba mu feebaree boppam jaaxal ko mu bàttale ne su fekkee faatu na dundu waxtu bi ñëw nañ ko jox keneen mu taxaw hmm. mu ne moom bu faatoo dundu waxtu bi ñëw nañ ko jox keneen mu taxaw hmm. yàlla dogal loola sëriñ ba yëg ko hmm. yàlla dogal taalee ba yëg ko waaw kenn du baax dellu ko na mu ko toppee am benn bi sëñ ba ne ne waxtaan yow sa feebar tàngoon dégg na yaa ji waxoon naa baax xamoo ko mu ne lu tax mu ne ko dama gis ni nit ñi xam kenn ku mën ci yow dara loo doon rek kenn lu koy tere loo ba bañ kenn lu koy taxalal man ba ma la xamee ba tey xaw kenn nit koo xam ne mën na ci yow loo doon xaw ma kenn ko ko mën a tere def loo ko doon def xaw ma kenn ko la ko mën a taxa def léegi nag noonu ngay jëflante ak njaboot ak yàlla gi damay ragal yàlla jëflante koog yow te kon man boo ma tinoo sama aju tinoo du sotti <laughs> bu baax a baax léeg-léeg léeg-léeg taalibe tarbiya léeg-léeg taalibe tarbiya bu baax a baax mooy sëriñ bàyyi foofu moom taalibe bee ko muy tarbiya góor gi yéen na foofu ne na sonn dama ne ko mu ne ko loolu gëm doo ko ba loolu gëm la am na loo xam ne am na loo xam ne kenn waru ko mel saka bu xam ne yaakaar yi dañoo aju ci moom selu ko ni ko waxee mm-hmm. inna lajaaje nuur suumun gam la mm-hmm. wal xana xatatan mer mm-hmm. lu mun bon la xam ne defin yoo xam ne ci mer wax dëgg ñaaw ci ko rek la wata xiqa sinnati ak te dëggal tuuma ismun bakkat la te loo foog lu mu ñaaw ñaaw rek nga saxal ko loolu baaxut wayaanaatul bari yi hmm. te sonnal koo dañ tuuma hmm. sul mun tooñ hmm. te ku la deful dara nag nga defa teg ay coono la de waam nii jontuma sax iqtaraftu ma fàggu jariratan tooñaange aw iqtaraftu walla ma fàggu kabiratan bakkar bu ma nañ la traîner man sax def naa la lu jagadi loo xam ne war naa mën a waaye amaana kuru xanaa doo fàttali mm-hmm. maa li nga xam ne en sorte ni saddaloon nga ma ko mm-hmm. dina si ka ñaan sa bopp mm-hmm. fi iban an insika ci jamono yi sa njëkk jamono yi sa wékk am na bis ñu toog man ak yow comme taa léegi sëriñ nga ne ku fireeku kaw jox nga ma sa benn xasida lañ ca ko nga ne saamih axaaka idaa xalat mm-hmm. minhu isaabata bil xalat mm-hmm. ba ma àgg saamih na ngay jéggal mm-hmm. axaaka sa mbokk mi idaa xalata bu jaxasee waaye dama tàkk ndax ku mu ñëwoon la saamih na nga ja na nga jàmmal axaaka sa mbokk mi isa xalaata bu jaxasee alisaabata jubal minu ñoom bil xalati ci njuum sa mbokk booy am ñoom lu la neex ak lu la neexul la ngay mu neex la nga de ko ba am wata jaafa na ngay dandu na sori xantaani bi ci tatalam mooy de ànd ak moom ñàkk a def ndànk insaaxa bu jengee yow man bis ab xasata wala mu bis dikk nag mu defee lu la neexul rek mm. ba mu waxee lu la neexul rek mm. yow bul fàtte ne yow fetal nga mm. woo fas na nga waxtu sa ni àkk sa njekk xente woo ba moom sa karam moo xam sant na mu sa ni àkk sa njekk la am xamata wala xeeb na ko ki nga xam ne sa nit la la rafet sa diggante moom ci tiraanga dee ko def bu rëyeeg moom def ko bu rëyul ak moom itam def ko mm-hmm. ndax bu rëyul ak moom yow def nga lu rafet rek te da lu rafet mooy def ci yow mm-hmm. waati wu na nga ko topp mm-hmm. inaa saa bu moyee su lay bañaan yow de ko nangul wowun na ngay yomb inaa saa bu jafeñee su teengale yoxoo maral wat nu jegeñal ila saa ta bu soree bu defee luy waral jubóo rek yow neexalal rek pour jubóo waaw xasida bi àggul kon mu ne ko yow xamu yaa ma doon lii xaw ku di dénkaane lii ci alxuraan balaa ko pàcc waaw na ko beneen yoon incha allah fan la noonu xam nga léeg-léeg nit koo ko feree ne wóor rek ah mu wax ay ah góor gi nag foofu la la toll suba bala mu xàgg ci ay ñu feree na ko ci la ko gune gi yaa waxoon way yii wax nal wafaa walaw axalla bi ma sarata wa ma wax na na nga kotti al wafaa matal kóolëre gannaaw jëf nga ne jëflante yow doxal koo dëggu ki rek walaw axalla doonte yàq na moom bi ma sarata la nga doonte yow la doon sa cër nga leeraloon ko mm. nga leeraloon ko mm. matalu ko mm. loole yow bu mu tee nga matal yow wa ma sarata lam sartawan wala la waxoon ne wartu te yow li yàqu da ko xam yëpp matal rek waalam bi annaka in talabta muhasaban rumta sata waalam xamal bi annaka ci naka yow xamal ne in talabta boo sakkoo muhasaban ku ñu sellal ruum ta nga sàkku asaka ta jéggi la yow nit koo xam ne tawatuñ ci moom dara loolu soo ko bëggee bëgg loo ta am in talabta boo sàkkoo ku ñu sell ruum ta nga sàkku ta jéggi man ta ana kan alladi mooy koo xam ne maa saa bosul ñaawal xëttu ci li wa man tey ko xam ne la waa ñaan ko alus naa lu rafet faqat kan nga xam muy koo xam ne mosul def lu ñaaw léppam lu rafet la ne dafa masaam ku doon wéy wéy wi ne man zalladi masaqat tuwa man lahul husna faqat haati tontu ko ne ko muhammadul hadi alladi alayhi jibrilu habati xanaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom de masa xattu moom na faqa dañ ko dee wax ne dafa am ku ko doon wëy ara man dalla fi man lahu rus na faqa ne mu dégg haati bu koy tontu naan muhammadul hadi ladi alayhi jibrilu hada teel day am léeg-léeg mbiru yàlla daf ne mañ noonu lay xam nga dama bëggoon ndaw di torop ñu xañ ko ko mu dox keneen du ko bàyyi waa ji ne ko dama bëgg ñu ànd tukki ñu dem Makka mu toogloo ko ci pegg Kaaba ne ko ñaanal yàlla mu génne ci sa xel ne Layla nga ànd ak sago sa bopp mu ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan nga saxal ci suma xol bi bëgg lay la ma def ci moom ci suma xarit mukk ba mu waxee loolu rek bàyyi daal di ko mbéy rek mu këpp mu ko foo daal di siggi daal di wax ne yaa rabbi innaka soo mannin wa maxfiratin bayyin bi aafiyatin laylal muhibbina الذاكرين الهوى من بعد ما رقدوا وساقطين على الأيدي المكبين يا رب لا تطلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين yàlla bu rekki ci man sopp ko lay laa ku wax amiin yal na ko yàlla yërëm ya rabbi la tatlubanni hubbaha abadan wa yarhamullahu abdan qaala amina ñi dégg akam haati wax ne amina amina la arda bi wahidatin hatta udifa laha alafa amina man ke amin ji benn yoon doyuma ji junne yoon la ko wax amin ji ñoo yaakaar yow ma di yàlla man ke benn yoon doyuma ji junne yoon la ko wax gis nga ko bu baax a baax ah loolu la dégg nga dégg nga léeg-léeg haati bi day am léeg-léeg leneen mbir day am aw ma tara xanaa gisuloo hmm. al mahbuba lu ñu sopp hmm. wal masruha lu ñu sib hmm. luzza lënkaleef leen fii na ma din ci wenn yoon léeg-léeg nga gis lu la neex ak lu la neexul ñu ànd leen ci menn mbir ni nga gisee ko boole ñaari nag li la neex li la neexul boole leen ka saw ki mel ni dig rek yab doo mu feeñ fil xuduuni ci banqaas yi mm. maa jëli ànd ak lu ñu kotti mm. al multaqada lu ñu xool mm. garab gi day meññ lu neex waaye dégg yu ñaw la amee su ko defee nag boo bëggee ci meññan mi il faut nga muñ la lay jëm ci dégg waaw nit itam nag mën na am lu jëm tey lu la neex am ci moom lu la naqadi rek wala naatatul xomri bànneexu dund ak tawili bu daa ji gudd yesoo bu haa dana ko jaxase naxa su sama di naxa la raxas bi jàpp fan woo gudd la ñoo ñaan heure bu nekk waaye coono màgga tere na ko neex coono màgga tere na ko neex wala daa da duma wax bànneexu dund ak tawili bu daa jiyaate e soo bu haa dana ko jaxase naxa su sama di naxa la rax bi jàpp wala win taqata te boo gëstu woon e ba ni samaani doomi jamono bi e wajata nga fekk aksarahum li ëpp ci ñoom saxatan ñu soti te bëri na lem am tane li nga te fekk tanewu la ah jamono bi fekkoon gëstu nga ñu bari ah da nga ne sooy boo sant yàlla ah wala wi saxata te boo gëstu woon e bari samaane doomi jamono bi boo leen gëstu woon kon nga fekk aksarahum li ëpp ci ñoom saxatan ngi jëlati am na nusxa yoo xam ne ci maqaamaan ñaari wéy yi di ñëw duñ koy indiwaat mm-hmm. naa al balaaxata balaaxa mm-hmm. wal baraaxata ak baraaxa mooy fasaa mm-hmm. wa tajaata ak wal xitata ak yoon yu bëri mu ne man ku ay jaar jaar la ci wàllu xar wàllu tukki wàllu bind sa yàlla mul jamoo mimman damma majlisuna mhm. bi annani xayru man tasaa bihi qadam mu tën na biir mu ne waaye jataay mhm. balaa ñoo jógee ci jataay mhm. dañ xam ne tey kuy doxee tànk maa fi gën ah sa yaxlamul jamu mimman damma majlisuna bi annani xayru man tafa bi qadamu alxaylu wallaylu walbaydaau taarifuni walxarbu waldarbu walqirtaasu walqalamu alxaylu wallaylu mooy liggéeykat dëgg la doxkat dëgg la walbaydaaw taarifuni walxarbu waldarbu jàmbaari xare dëgg la walqirtaasu walqalam te ajib dëgg la mooy loolu dégg nga mooy loolu dégg nga xëy na boo xalaat nga doon mu daal di rek pour dafa la jom moom gars yi ñoom kenn ku nekk rek nga nekk ngeen taale sa bopp du dugg <laughs> ruttu tàggat naa albalaxata wal baraxata mm-hmm. wasajaata ak njàmbaar wal xitata ak yoon yu bëri mm-hmm. wajatuma fekk axsanama mm-hmm. gàncax la métti daal yu raa def na ko gis sabrama loolu mooy natt xam-xam yi hmm. maa ngi leen daal fa xam daal waaye gis naa ne daal hmm. mbir daal li fi gën daal hmm. mooy topp loolu di xam-xam mu ngi ak woon ni fa jaala xaala xaaris nee na fa jaala dal de xarab a seexu góor gi yor not ne tudde métier tegu naat naa dafa silli métier tegu jaan métier tegu mel ni jaan joomal o ko yeggee amul la wax. Hmm. wa yu xam ne côté muy robu. xam la xatal baasi robu xoob. al mu tilli bu daa yëkkati dox mu ngi rob xale bi. Hmm. mel ni liccin boobu di yëkkati dox ngir fël fël. Hmm. su mot xaala topp bu mujj wax. wala di giñ naa ci buur bi nga xam ne zayyana rafetale na mu asamaan asamaan bi suru bi ci jumi mooy biddiw yi may la giñal ci yàlla mi def biddiw yi ñuy taaru asamaan waanta la bi mu wàcce almaa ndox mi ne suur bi tukkee ci niir yi muy wàcce taw ci niir yi ne maa raw xii de sama jeng sama bañ ani listilaan wala juboo illa li tawakkili te daan rek teet gàncax rek dara ngi teet gàncax mu ne ko boo gisee xale bi sax nanguma jubóog moom du question bi lii sax wante sax bu sàggee ko daal lay ragal xaw buntu lay dikk sax bu sàggee ko daal mooy sax bu sàggee ko mooy wuññeeku su doon su xottee ko sax bu sàggee ko daal lay ragal maa raw xii de sama jeng mooy sama bañ xam ne nit laa war a jubóo illaa li tawakkil ibtidaa ndare ngir seet gàcce rek fa inna haadal fataa naka gune gi le irtaada baa xooxoon na an amoon a woo ba ma gàddul ay coonoom waraan ya ak ma sàmmoonte su oon woo ay mbiram waxat kaanu te nekkoon na addahru jamono yësuhu di sotti wala ma ko nekku moon asuhu di nekk ah gune gi dama ko miinoon loo xam ne ah fi ne mënatuma ko su ma ko bàyyi rek sag sàgge dama ko miinal loo xam ne ah boo faa ko mënoon ndax jamono maye war na ko fi nag mënatuma ko te daal su ma ko bàyyee ñaan rek sag na sàgge ko daal léppam maa ko gàddu woon léppam léppam ndax boo mënaloon naa ko gàddul ko léppam fa inna hada alfata nanga gune gi in saada baaxoon na an amuuna ma gàddul ay coonoom wuraan yaa ma sàmmante suwana wa ay ka waqat kaana te nekkoon na addahru jamono yasuhu di sotti ma ko nekku woon asuhu di nay fa amal ana léegi nag buy tey nag ee fal waxtu waxtu wi ha boobu nekk na kuum na ah buy tey nag moom ni mu demee ñun ñëpp ana daal léegi nag fal waxtu waxtu bi ambuusun njëkkal ak kóon la waxatul ay ay si biir dund bi buusul bañ su la mooy ko ah, ay si jamono la jamono bi la la jamono bi la hatta hatta inna bisbati ba sama kodday haas yi sax fii sax haas yi lii sax xaalatun haba wa bayti sama néeg la ta tool du wër bii ci moom xaalatun danaña xam nga ni bañ cee teg dara jën a xam ji la mm-hmm. waaye gannaaw leen rek neen la rek ñaaw la xaala xaaris ne na fara xadal di yërëm li ma xaali yi maa ngir seen wax ñoom ñaar xalbal wali xolu wali xalbul wali xolu wali wa awaate mu yërëm la wu maa ñaar leen ñoom ñaar mm-hmm. min xëyri leeli ci soppe bi guddi yi mm-hmm. wali yërëm wasa ba te mu jeng ila qisas yi maa jëm ci jagleel leen bil isnaas bi ci ndimbal mm-hmm. mu bëgg leen a dimbale mm-hmm. ndimbal li si sura lay doon mm-hmm. wa amara mu digal an nabara te way seetaan yi beneen siraat yi ci wàññeeku kon ñu jàngal leen baatu nabara mooy mbooloo mu dajee de seetaan dara jamono bi nag jumtukaay bi ñoo seetee muy linet ci lañ koy jëfandikoo mu ngi mel ni rek mbooloo mu tukki dinañ ko daan jëfandikoo waaye léegi aala bi nga xamante ne mooy ànd ak safari ci lañ koy jëfandikoo yëpp ay tatawuraat lu xa lu xa liyaa la nit ñi seen mbir ni mu amee ok évolué dafa feeñ ci seen i wax léeg-léeg loolu moo ci nekk rek baax na aji solo ji ne bu kuntu nekkoon naa mutasawifan daaji yu ila mar a seyxi jëm ci gisuwaay góor gi laalliye ngir man alamu ma xam xel ma isa yent bu ma jàkkaarloo was ma woo mandargaam mu ne ci biir cawle nag man bëggoon naa jàkkaarloo góor gi daal ndax bu dee xamoon naa wala maa ngi koy door wala bi yëkkun te nekkuloon asihaamu rajaj loo bi yustiru de feeñalaan wu ci wala yafraju te du yëral lii ñaano xaar lu wow mën a jege mi lu ci moom waaye booba xat ak barab bi tax na mënu mu ba jege ji ko itam fala maa taxawadat ba daanoo mooy ba tasaarooyee ak su boobu sàppe yi waaj pala te pandaay bi alwuquuf way taxaw yi ba nga xamee ne xaadi ji ne aywa dem leen dem léegi man wàcc naa ba nit ñi tasaaroo barab bi féex tawasamtu wa settantal naa ko ba mu la xool fayida ci mbetteel bu wa abu zeydin ndeke abu zeydin la wal fata cam si fata wa camam si la ndeke ji fa araftu ma xam hina idin ca boobale maqsabu xare waaye mooy jubluwaayam te fi ma ci li nga xam ne na ko waaye boobu laa xam ne rek pexe la wakittu jegeñ na an xabdu di xayarlu alayhi ci moom li ab taarifa ngir naa xammee ku ilayhi jëm ci moom tuuti kon ma tatam ko ne ay sama góor gaa ngi xaaris xaaris man la xaaris tun ma wax loolu de wakittu jege ñoon naa an kaddu di xayaarlu alayhi ci moom li astaarifa ngir naa xàmmee ko ilay jël ñoom xaw naa koo tataw ne suma góor gi la naan ko man laa de fa tajare ni bi imaadi tarbiyi ci junjëg gisam melxatu gisam mu dal dama cat bët wa taw xafa ni mu taxaw bi imaay këf yi ci junjëg teen xam ne ma nii junj ko nit ma daal am mm. kuy yor du sa xët mm. wala te nit ñi léeg-léeg kuy sawaree dañuy wax bu wax lu leen dugal yaa ngi mu ngi dégg dégg moo xam ne su ko xàmmee fii rek mm. dem ba lenn xanaa mën na yàqu dégg nga fa lazimtu ma taqoo mawqifi sama taxawaay ma taxaw rek waaxaatu ma yéexee mun sarafi sama wàññeeku mm-hmm. bi nit ñi demee ma des mm-hmm. fa qaala daal di wax daal di wax mm-hmm. ji ne maa ana nan maraal mu ko moy wali ay sawabin ngir ban sawa la ma xamu ko sa sox mun yow loolu sox loo fi def fam na dara wooy jàkkalanteeg moom aseexu góor gi ba may tontuwaat fekk na góor gi ne ko waxaala mu ne ko inna woo moom ali bi sama wéttal la kii nag moom muy jaxaajoo man moom sama àndandowaat la wasaayi mal posé mooy baron li ma oddoon parce que ma xam mu daal de maye moom waali ji hen da haadal xawle ba jële bi taani si ci sama wéttale mu ne ah gannaaw ma ngeen daan ànd di ànd mu ànd la rek kon mën nga toog war a xasa mu yolombal si juróoti ci sama jiig su ma afaada topp mu mu bëbal mooy mu jox alayhi ma ci ñoom ñaar xilaata yi ñaari mala mu jox leen ñaari mala wa wasalahu maa mu may leen benn saabeen ci ne saab mi nan mu jox leen kem nisar ci xaalis ak wurus wa taaduma mu kodrante ak ñoom ay yetaasara bu ñu àndawaat bil maaruf bi ci njëkk ila idlali yawmi jël ci ak fig bis al maxobbari bu ñu ragal mooy leen gannaaw yàlla boole na leen man leen a xaajoo dañu rafetal àndoo rek àddina si tuxu Mm. dana tax bu du ci sax mm. benn góor gi dem bàyyi fi gune gi mm. wala gune gi dem bàyyi fi góor gi fekk foofa nag jarul ñaaw parce que nga tuma mu ko dara teg ñoom taa sora ba ñu àndoo ak bil maaruf bi ci njëkk illa idlal yami ba ca sig bis al ma ko bëri bu ñu ragal fana waa daa ñu buur ñoom ñaar muy góor gi gune gi min naa diihi tukkee ci pencam waali ñu mm-hmm. jógee ca barab ba mm-hmm. musiday de daway yëkkati mm-hmm. bi sukri ayaa diihi ci sant ay mayam da wax nuñ ko sante xaalis nee na wa tabiatuhuma ma topp leen li arifa ngir naa xam maswahuma seen saxuwaay waaye tasawada ak ma yóbbulu min najwahuma ci seen déyaale ñoom ñaar mais dama leen topp ba xam seen dal ba ak itam ñoom liñ nekk ay udaba bari xam-xam dëgg-dëgg mm. naa ma jëlee ci ñoom su ma ànd ak ñoom mm. waata soog wata ak ma yóbbu lu min ma ci seen béyaale ñoom ñaar mm. faram ma ajas naa ba ñu jéggee ximmal waali hëttëb waali ji waaw day naa te ñu fëri ilal fata yi jëm ci barab bu yaatu alxaali ji féex bañ rombee lii waali ji ba xàgg barab bu xam ne na adressé ni jot na ma ahad jëla wisati yi kenn ci soldat soldat dafa am ku ma dab koo xam ne nit ci nit ci service yi la muhiman man ila hawsati yi jëm ci laqal wali yi mooy wàcc waay wali na ma kilifa gi nee na yow la ma wax da abi ali abi zeydin moo bu sey ne ko maa dundu woo jortu bu mu ko dey hmm. istaxdara ni muy ma teewloo hmm. illa li yastaxbira ni nara ngir na hmm. ma laaj ma ne ko woote bi woote bi dey la bon yow lañ may woote fa masa ana lan aqulu lay wax wan ngaa la yëgu lu wa bi ay waadin ci wan kun ajoo lay wa liru maa wanta ni may defal moom fa qaala abu sayyid néewa ah bañu béralal loo ñaar ko xam awa taqal bi dama xolam rek watala bi ak sama boye bi lu bi ci xaram na ko nax naa na ko nax naa ko waaw bayin béralal loo ñaar ko xam awa taqal bi dama xolam watanaa daal sama foye bi biri di li alama ngir na xam ne an na riyaawa naka ngalawam laa xadda yenam insaaran callaleer wa jadwaloo yoon leer saa dafa dajjal na mu tayyaaran duus mu xam ne dajee naa ku ko ëpp doole malaaka mu nekk rek xam na mu xam ne teewal dajee dafa la mu xam ne rek dajee naa ku mu amul li yaalama ngir na xam ne am na riyaawa naka ngalawam laa xat daje na mu yasaaran ca la weera mm-hmm. wajan wala woo yoon dayam saa dafa dajal na mu tayaaran duus mm-hmm. xaaris ne fa xultu ma ne ko axaafu damay ragal ay yattaqida bu tàkkal xadabuhu meram mm-hmm. fa yalfaaka ñoro mela laha buhu tàkk tàkkatam aw yasafriya walla wéy tey soo téyam fayat bi rayaat ilayka jëm ci yow bat soo jàppam ma ne ko ah mbiru buur neexut na dañoo yaa gannaaw wax ko loolu mu mer ci fii mu teg la fi ay gàllankoor yoo xam ne kenn xamul nu muy demee wala mu xàpp ko ku sori yàgg-yàgg mu jàpp la loolu ma ci jaaxal fa qaala mu ne ma inni man arhalu danaa al ana léegi ila ruha jëm ruha waa na yeltaqi fan lay dajee suhaylun suhaylu wa suha ñaari biddiw la ñu yow bii fii la nekk bii fii la mu ne ma man ak moom xanaa bala nga wax naam ne fa bala maa lay ma man maa ngi dem léegi baabal ko dëkkam bi yëpp fa baax na ko bu ñu jàng la fan la nekk ne da nga hmm. mu ne bala maa hadat ba ma teewalee alwaali ya waali hmm. waqat xalaa te mbir mu féex na majlisoo jataayam barabam hmm. wan jalaa te hujñeeku taxabbusoo ñëkk xar kanamam ba ma demee ba ca waali ja hmm. fekk mu ngi de ak nit ci nit hmm. na ca barabu service ba hmm. dina ak nit la ci nit ñi na yesi bu di mellal xaba seydin ba fadaloo ak gëneelam muy abu seydin ak ni mu xamee ci wàllu adab tey daal wax dëgg kenn ku ne ku ne gis naa ko waaye ku mel ni que ma gis ah, de wax daal nu mu ko nawee waye dummu te muy ŋàññi addara jamono la woo ngir moom a mm-hmm. dëgg kay mën na xaree xam mm-hmm. kii tey su fekkoon du tolof tolof yi muy din mm-hmm. na defar lu ne ci àddina summa mu ne ma nasattuka laa laaj naa la ji yàlla alasta déer yow alladi yaay ki nga xam ne ahaare woo xabal na ko ak dasta yëre yim sol malaan mm-hmm. du yow yaa bu mum sol sax amu ko du yaa ko xabaloon lam sol mm-hmm. xaari ne fa qultu ma ne ma mu ko rek wala dii giñ naa ci góor bi nga xam ne ahallaka wàcce na la maa ana déet man bi saayi bi dalika def ci may borom moomale mala bal li fi nekk ànd yow alladi yaay ki nga xam ne tam mat na am yi li am daal mooy dikk naa gi tappalee ba yóbbu sa yëf waaye man yi rek moom ah déet ba man xam ne xal la ka wàcce na mu la maa ne de man bi saa'ili daalika daste may borom moomale malaan bal li fi nekk ante yow alladi yaay ki ne tamma mat na alay war fa dastu ka xaalis ne na fas warra dal di jeng muxlata wa ñaari nagi bëtam wax marra dal di xonq wañ na ta wa ñaari nenk te nga mooy ñaari ñaxam mu ne ee seen may lu soppeeku mel ni kàr na feeñ na ci moom en tant que kilifa ñu ne nax nañ ko ci jaaxaane xam nga du sax dëgg dëgg waaw dag kilifa bi naan ci yow lañ yaakaaree kaaram bi yu bëri yaa koy réglé ñaa sempal baata la dikk na nax la yóbbu sa yëf dem kooku it xaw ko daal dafa xaw a day waar daal loolu la wax wa qaalu mu ne wallahi giñ naa ci yàlla ma aajasani moo ko may lottoloo xattu ci léwéy fadhu muribin gàcceel aji dikk aji dikkee sikk wala kasfihu maayibin du caageen muñe ay xëy ay xëy man lali falaan dikk nax ma ca kenn mosu koo mën a def ku ñëwee nu dul noonu bu ma suboog moom enquête wala mu ngay bàyyi daa bëgg walakin li bi nekk maa sameetu mosuma dégg nag bi ànd na say xan ci naka góor dallasa nëbb na ayib baadamaata tallasa ci bu mu kaalawoo bu mu solee tay la saan wata xallasa te mu baxaan waaye dem ba dem ak solu col nga lislam di dox doxinu magam lislam ma de la foogee tappale loolu moom laa mënu ndax ko kenn mënu ko foogee tappale fa bi asa ci lii tam ma lammatee la koy ñaal ko an labbasa ba mu lëntale ba mu jaxaseel lii képp moo tax man ma afatadri ndax yaa ngi xam ay na sa kan fan la jublu salika lu ka fu bon kooxe ah xam nga mu ne foo muy dégg xaalis ne ma ne ko moom nag asfaqa ragal na min ka ci yow li taaddi tawrihi ngir jéggi dayoom fadaana mu laxas xam baxdaada walis baxdaada ndoori ci gannaaw ma ne ko kooka day ba mu xamee ne def na lu ko ëpp la yooleef gaaw gaaw daw ba mu xamee defe na wii mën na koo jural lu man la xem bu wala gaaw gaaw daw asfaqa na min ke jeew li taaddi tawrihi ngir jàggati dayoom fadaanan mulhasan ba'da isbaatin ci gannaaw ci gaaw ci gaaw loolu laa wax mu ne fa qaala xaadi ji ne laa xarraba yàlla bu jege ña allahu yàlla dafa ñaar ko nawan sori kooku de yàlla na gën de sori de gën de sori rek wala kalaahu yàlla bu ko yàlla wattu ay na sawa fu mu mën a sax fu mu mën a nekk yàlla nay torox yàlla nay tumarang yàlla la wax de dégg nga fama hmm. sawaltu jànkoonte wu ma hmm. asadda lu gën a tat min ci tappaleem hmm. wala culu bonam wala duxtu mosuma amarra lu a wex min magrihi ci pexem kii nim ma def tey ma ba yóbbu sama yëpp baxee ma nax dem baraw lii kenn musuma koy def fi hmm. hmm. ma nekkee ci suma service bi ba léegi walaw laa hurmatu adabihi su bi laa waxaltu kon ma sori bi te mooy mooy mooy ma xiiral ma soril ma jéggi dayo ma sori bi talabihi ci sàkkum hmm. ilaa yaqa ba mu tàbbi bi yadi ci sama loxo fa ooqia ma bugal bi ci moom dafa fekk ne xam-xam moom xormaam laxaat la ba tax nit gannaaw dañ ne borom la yenn kenn du ko ko def loolu lii dama koy xàpp bu sori topp ko moom ba ko dumal ko sama bopp ba sama xol seen ni ko noonu lay def wa inni man la akrahu tanasib an tasiha bu siiwat faalatawa jëfam bi madinati salaam ci Baxdaad fa abtadiha tabsuma gàccewu beneen anam ci diggante ñu dégg diggante nit ñi léegi nag bëgg moom mu tasaaroo ci dëkk bi ndax it bu tasaaroo kilifa gi dañ ko triant dañ ko naan rek ay gars yi ñoom la ñuy nekk di wax loolu daal wax dëgg sa bu dara waaw soo dee ab anam ci diggante bi ndee wa dégg nga wata bata ti si péegu makaanati daraja indal imaam bu góor bi jullit subaa man naa waral amirul muminin kilifa gi ma fi teg hmm. daal dama dama fi jëlee wax ne yow li ma la jox mérite woo hmm. waaw bu ko déggee mën naa yow li ma la jox mérite ku jógee nax la yow li ma la jox mérite woo hmm. si rek mu mujj du kattan dëkkuñu rek benn xaas ci diggante wala am ak am te mën na jural ñëpp jëm rek kon dama bëgg daal faa dani mu kóodaranteeg man ala an la abuwa ci den may tudd ma ci li nga xam ni entamada jublu na ko maa tuntu fen soxna xillante aji wàcc bi asal balat ci bile dëkk mu ne fii yaa ngi nekk Baxdaad daal lii bu ko lan qaala al Haaris ibnu Hammaam Haaris ne na faa tuho ma kóodaranteeg moom muahadata man kódrante koo xam ne lay taawalu lu mu tawi man ko waaw baax na muy waaw baax na joo xam ne dogu na ci matal lay lenn wax ko te génn mu matal mu ko def woo faytu ma matalal kóolare lëfoo ñaal ko kama wafa ni ki matale woon kóolare ak samaw alu samaw al ma matalal ko kóolare comme ni samaw al ibnu adiya matale woon kóllëre samaw al madrabul masali la ci férié nit ku dëggu woon a dëggu la umru ul xaysi ba mooy dem rum ja xaysa nde bëgg a am doole pour mën a xeex ak bu nu asal kere bàyyam dafa yore woon ay ngànnaay dénk ko samaw al ba hmm. hmm. mu wéyee xarisul maxsaani dëkk ci sama wàll na ko dégg naa ni xumru kay dala dénki ngànnaay mu ne ko mu ne ko dama bëgg nga jox mu ne ko waaw déedéet ko jox ngànnaay daal mu ki ma mu ne ko jëlee ma la gor moom ngor la mu ne ko ah doom bi mu tax mu bëggee góor gi rek yaa xam hmm. loolu doogu ca la mu wax ba rey doomam waaye wàcc na ma gànnaay yàlla hmm. man bu ko koo jox hmm. loolu moo tax nga ko matal bul matal te mën a matal ne ko baax a baax na xisa boo demee ci diwaan ansar dana fekk mu wéy ko lem na ñeent ba juróom ñett